sëriñ moor roqaya buso sëriñ buso mi nga ne àdduna ci atum 1885 ci dëkk bu sell bii di mbàkke bawal doom la ci soxna roqaya mbàkke bintu mamor anta sali mbàkke waajuram rakku sëriñ tuuba seexul xaddiim la waajuram wu góor moom sëriñ moor roqaya buso mooy sëriñ maam cheikh omar buso ndax kii di cheikh omar fuutiwu taal bi mu ñëwee mbàkke bawal la sàkku woon ci sëriñ busoobe mu duppe ko doom moo tax bi maam cheikh omar bu mi ganee àdduna mu duppeeku ko maam Cheikh Omar Bousso mi doomu sëriñ Bousso be la kii di sëriñ Mor Roqaya Bousso ñii la bokkal waajur wu jigéen muy ku ñuy wax sëriñ Maam Balla Bousso ya sëriñ Ousmane roq ya ak soxna Faati roq ya ak soxna Aminata Bousso ya kon ñaar ñu jigéen la bokkal waajur wu góor ak waajur wu jigéen ak ñaar ñu góor ak moom muy ñett kon soxna roq ya Mbàkke juróomi bant la am kii di sëriñ Mor Roqaya Bousso bi mu matee dal lii di alxuraanul karim maamam di sëriñ mbusoobe moo ko dalal lii di alxuraanul karim ci mbàkke bawal ginnaaw bi lañ ko jébbal sëriñ ndaam abduraxmaan loo mu eggaleel ko lii di njàngum alxuraanam ci dëkk bu sell bi di ndaam daaru xalimul xabiir ginnaaw bi nag lañ ko jox maam ni ibrahima faati mbàkke mu tëralal ko lii di xam-xamam di nijaayam ci atum 1895 bi sëriñ tuubaa seexul xadim di dem ci géej gi kii di sëriñ moo roqaya buso mi ngi woon ci mbàkke baari bi seexul xadim yim di dénk maam Thierno Ibrahima Faty njaboot gi ci la ko boole waaleeg sëriñ Mor Roqaya Bousso mii ginnaaw bi nag fu maam na dem ànd ak Cheikh Modou Moustapha ak Cheikh Mamadou Fadal kii di sëriñ Mor Roqaya Bousso àndoon na ca délégation booba bi seexul xaddim ñibbisee ci géej gi ca talaata ba di fukki fan ak benn ci mois de novembre ci atum 1902 dëppoog muy talaata juróom-ñeenti fan ci mois de Chahaban ci atum ci gàddaay gi ñu teg ci juróom benn fan alxuraan seexul xaddim woolu woon maam ceerno ngir ñu gisee ca gisee booba sëriñ Mor Roqaya Buso ca la bokkoon xam ngeen ne sëriñ Mor Roqaya Buso bi mu gisee seexul xaddim altene fukki fan ak juróom ñaar ci mois de novembre ci atum 1902 dëppook muy altene fukki fan ak juróom ci weeru Shahbaan ci atum 1320 ñoom ñaar maam Cerno Ibrahima Faati ak sëriñ Mor Roqaya Buso ci lañ giseek seexul xaddiim tombeek seexul xaddiim jóge ci giij fu seexul xaddiim jaar rekk ba ni mu ñëwee daaru salaam sëriñ Mor Rokhaya Bousso mi ànd na ci ak moom moo xam ndar bari jàmm siise sànnoosi jaar ñaxal am fu fukki fan ak ñaar kër mataar bintaloo mbàkke kajoor mbaakol ba ci kokki guy ak daaru salaam mu ànd ak seexul xaddim fu mu jaar fépp mu jaar fa ca daaru salaam googe itam seexul xaddim nekkoon nag sëriñ moo roqee buso ba mu fa jógee itam ñëw daaru marnaan seet si maam ceerno ibrahima faati itam sëriñ moo roqee buso nekkoon nag seexul xaddim bi seexul xaddim amaatee ay takk takk ak kii di mbaaxaan ca problème mu lal yooyee dem ba ngari tuumaaloon seexul xaddim ne day jihaadaat ba tubaab bi yóbbuwaat ko ci wàllu yoon jëlewaat ko Sénégal yóbbu ko gànnaar sëriñ Mor Roqee Bousso ànd naag seexul xaddim ci gànnaar ci 1903 nekk na fa ba ni seexul xaddim jóge gànnaar mook cheikh Mamadou Moustapha Mbacke cheikh dul faadal seex ma sàmba mbàkke sëriñ moo roqee busu ak ñaneen ak ñaneen ñu fa nekkoon mu nekkoon ku jege seexul xaddim moom sëriñ moo roqee busu ba tax na yenn relation yi ci diggante naar yi ak seexul xaddim moom daana ko dox wax nañ ne itam lii di bés daana ko def seexul xaddim mu nekkoon jarbaat bu jege seexul xaddim bi ñu jógee gànnaar ci 1907 ñëw ca yéen jolof itam nekkoon na ca yéen jolof ak sëriñ tuubaa seexul xaddim moom sëriñ moo roqee busu foofuy tim ci ca yéen jolof bindal na fa wala bindal nañ fa seexul xaddim ay kaamil mook Cheikh Modou Moustapha sëriñ fàllu ak ñeneen ak ñeneen ña fa nekkoon ca yéen jolof itam lañ nekke ay murit moom cheikh mudu moustapha mbàkke cheikh mamadul faadal mbàkke ma sàmba mbàkke ak kii di sëriñ Mor Roqaya Buso dafa am bi seexul xaddim woolu leen ñoom ñeent ba ñëw mu ne leen duma bàyyu kenn cheikh Modou Moustapha ak cheikh Mamadul Faadal ñoom moom jooju wax mu ne leen duma magu kenn cheikh ma sàmba moom jooju wax mu ne leen duma nijaayu kenn sëriñ moo roq jooju wax mu ne leen dañ koy jaay te ku jënd rek yaa moom njëg la ci la nag ñoom ñeent ñoo ñooñu jaayanteeg seexul xaddim ci ca yéen jolof kon booba lañuy doog a nekk ay murit loola ci ca yéen jolof la xewee ci 1912 la seexul xaddim jóge ca yéen nag ngir ñëw fi nga xam ne ni moom mooy njaareem ci beneen résidence surveillée waaye yoon wa jaar na ci ay étapes yu bari laata muy ñëw fi nga xam ne nii moom mooy njaareem keroog bi seexul xaddim jóge ci yéen jolof jaar fi mu jaar ñëw kàdd booloo ji jaar si daaru marnaan bi mu ñëwee war a fanaan si ndaam na xëy dem njaareem bi ñëwee ba daaru marnaan kii di sëriñ roq roqee buso la seexul xaddiim yónni woon ngir mu dem waxi sëriñ ndaam abduraxmaan loo ne ko foofu la ko suñ boroom wax ne mu fanaan fa bi sëriñ moo roqee buso dépare daaru marnaan ngir ñëw ndaam daaru xalimul xabiir wax ci sëriñ daama abduraxmaan loo ne ko seexul xaddiim nee na fi la ko suñ boroom wax mu fanaan fi keroog bi mu egsee sëriñ ndaam dane ko ana ko baax ki ndax ñaare foo masaa gis sëriñ moo roqee buso seexul xaddiim sori wu fa ko seexul xaddiim ma nga fa ginnaaw bi bu sëriñ ndaam bàyyee loxob sëriñ Mor Roqee Buso la ne ko seexul xaddiim ma nga nee wax nañ ne keroog sëriñ ndaam Abdurahmaan Lo dafa bég ba ak takk fi seexul xaddim nekkoon ci kaw fas wi fa la ko tungóome ba teg ko ci kaw lal bi mu toogoon seexul xaddim fanaan ñu xëy jaar ndula dem njaareem ci 1912 foofu itam la leen sëriñ tuubaa seexul xaddim joxe ndigal ñoom ñu dem sanc ay dëkk cheikh moodu moustapha mbàkke tundoodi cheikh dul faadal mbàkke ndindi sëriñ moor roqaya buso dëkk bu ñuy wax tàkke tàkke soriwul dara dëkk bi di tundoodi ñu nekk fa di liggéeyal seexul xaddim ak ak di tarbiya mbooloo yi leen seexul xaddim jox seexul xaddim tim woowaat na kii di sëriñ Mor Rokhaya Bousso xamal ko ne na ñëw ci dëkk bu sell bii di tuubaa Mbàkke ngir nekk nekkal ko fi lii di chef de village di ko àtteel wala di ko tàqaleel dëgg ak fen ngir képp koo xam ne nii nekk nga ci dëkk bi te defoo lu dul yoon sëriñ moo roq bu sa teg la ci yoon képp koo xam ne nii yaa ngi ci dëkk bi tey def li seexul xaddim santaane sëriñ moo Rokhaya Bousso aj la ci kaw kon premier chef de village dëkk bu sell bii di Touba sëriñ moo Rokhaya Bousso la mu am bis ci bi mu nekkee Touba chef de village waa dëkk bii di Ceenoo Jaw digganteem ak Kébémer fukki kilomètre la woolu woon sëriñ Mor Roqaya Bousso ngir jox ko fa suuf ngir it mu sañc foofa ab dëkk sëriñ Mor Roqaya Bousso ñëw ci sëriñ Tuubaa Seexul Xaddiim tàggu ko Seexul Xaddiim ne ko Mor roq ya dangay tàggoo wala dangay laaj ci ndigal ndax tàggoo ak laaj si ndigal bokkul mu ne ko damay laaj si ndigal mu ne demal tuubaa googu te nga nekkal ma fa sëriñ ma roqee buso fii xalifaam bii dëkkee di sëriñ na ceexna buso foofu itam fi la dëkkoon ci bi mu nekkee tuubaa foofu itam fi la génne àdduna sax ci kër googu sëriñ ma roqee buso nekkoon na itam bindkat bu ràññeeku lii di ay way daana bind ci ni mu ko soobe way na ay way kii di nijaayam Maam Moor Jaara borom Saam ñu teewlu lenn yoo xam ne ni way na ko nijaayam wax ci ne haadihi daaru fitnatin wa gururi wa bala'in wa nukbatin wa shururi wa wafaatul imaami a'zamu amrin ma atat mislaha surufu duhuri aada kullal wara bi xulqin wa diinin wa saqaa'in wa fitnatin wa bururi haadiqun faadil nabihun adibun salihun munqidun li kulli faqirin lam yazal yasrul uyuba wa yu'til jamma yaqi bihi rida alqadiri fa mazayaahu jalla kalla anit yaa niha mantiqu zakiyil xabiri fa jazaahu ilahu وخير جزاء وسقاه الرحيق kon loolu ngeen dégg noonu firnde la ci kii di sëriñ Mor Rokhaya dul Cheikh Mamadou Moustapha ma mu dul Fadal Mbacke ñoom ñett ñoo yaroo ndoo ñoo defandoo itim lu baree bari rawatina am njàng seen diggante ëppoon na sax doomu bàjjen ak lii di doomu nijaay mu am bis benn naarub gànnaar bu ñuy wax Muhammad Abdullah al awaliyu ñëwoon seet si leen muy sàkku nag daraay baxa yu ànd ak tubéyam ci ay way nag la ko doon jaarale ngir di ko sàkku ci ñett ñi ñu déglu way yi naar yi doon way ci kàllaama kaf jaarale ko ci ñett ñi ngir sàkku leen loolu hal fiikum maajidun nabun yamunnu alay bi mbubb min baxa aw bi turki aw bi tubay may yafalan minkum wa haada ala ajalin dana an ajilin xabla xuro di fay lii la sëriñ moo roq ya buso tontu woon kero law ndeltu ab baxa yaa saaxi ma jox la ko tey xablal xuro bi walakin huwa barla alay law xulta lixtat xintan gayra baxatanal bihi wa illa fala tasfar ati bi tubay cheikh mamadul faadal mbàkke lii la tontu woon fa haaka baytayni min nii doona axtitu bay li annani aajisun saaxibi jox la ko tey wallahi tallahi lawla al aqlu yamnauni an nawni shi'rin tara min nii ahsana way cheikh mamadul moustapha mbàkke lii la tontu woon yaa shaa'iran muflixan yatwil balaaxata tey ndeke mbubum baxa mimma lam tanalhu ba tey iddaaka yaa xillu inni kuntu muxtajiban wala na fabshir bi anni man danaa la ko may kii di mouhammad abdullah al awaliyu lii la leen tontuwaatitim ñoom ñett ñépp muy sëriñ Mor Rokhaya Bousso mu dul Faadal Mbàkke ak cheikh dul Moustapha Mbàkke lii mooy tontu ba yaa saaxi bi jox ma ko tey yow Moustapha mi ne woon maa lam tanoo ba tey wa maa aleyki bi day nin laa wala ajasin laakin baxaak turki daaw yomb na waay ba tey lii rek day dëggal ne ñett ñi ñu amoon xam-xam lañ te mënoon a way te kàllaama gu leen neex waye ak nu leen neex waye jarbaatub seexul xadim bi doomu cheikh omar bu sëji ak soxna roqaya mbàkke mi ngi génn àdduna bisub altene fukki fan ak benn ci mois de février ci atum 1963 altene fukki fan ak benn ci mois de février ci atum 1963 dëppoo altine fukki fan ak juróom ñaar ci weeru koor ci atum 1382 ci gàddaay gi altine fukki fan ak juróom ñaar ci weeru koor dëppoo 1382 ci gàddaay gi ci këram gi nekk ci Touba di kër Serigne na Bousso mi toog toogaayam foofu fa la génne lii di àdduna doomam ji di Serigne Thierno Bousso moo dem yëgal kii di Cheikh Mouhamadoul Fadal Mbacké ne ko sama waajur wa génn lii di àdduna seex dul faadal mbàkke ne tekk ab diir ginnaaw bi la wax ne sëriñ moo roqaya buso de maanaam làqoom gi mu làqu de mooy joxi sëriñ tuubaa lii di caabi jumaa ji kon mën nañu wax ne làquk sëriñ moo roqaya buso sabab bi mooy wax na seexul xaddim jumaay tuubaa jaga doon liggéeyloo sa njaboot gi egg na caabi jaa ngi nii ndax loolu la seex dul faadal mbàkke wax keroog bi sëriñ moo roqaya buso génnee àdduna ginnaaw bi itam mu seedeel ko lu am solo ñu jël sëriñ Mor Roqaya Buso denc ko ci wetu seexub seexul xaddim bii di seex isaa jenn boroom njenne ak lagan ay xalifaam nii la tëdde sëriñ elaaji abdu karim Buso moo ko wuutu ci atu 1963 ba mois de décembre 1975 ci mois de décembre 1975 ñaareelu xalifab sëriñ Mor Roqaya Buso mooy sëriñ Abdu Samad Buso ba ci atum 2013 2013 ba nëgëni nag ñetteelu xalifa sëriñ Mor Roqaya Buso bi moo fi nekk ñu koy wax sëriñ Ceerno Buso ñuy ñaanal bu baax xalifaam bi fi nekk di sëriñ Ceerno Buso suñ boroom taxawu ko te wéral ay cëram te yàggal ko ci kanamu njabootu sëriñ Mor Roqaya Buso sëriñ roq Roqaya Buso am na bis buñ ko daa fàttaliku muy bis bi mu génnee àdduna sëtam bi di soxna Astu Buso moom sëriñ Ceerno Buso mi nekk xalifa sëriñ Mor Roqaya Buso jamono ji moo daa fàttaliku maamam ci bis bi mu génnee àdduna di fukki fan ak juróom ñaar ci weeru koor gi màggal nañ ko at waaye màggal googu mujj nañ ko bàyyi biñ demee ba 2013 bi ñetteelu xalifaam bi toogee di sëriñ Ceerno Buso la seeti nag ki fi nekkal sëriñ Tuubaa Seexul Xaddiim di sëriñ Cheikh Mati Lay Mbàkke ngir di ko wax taxawu gum bëgg a taxawu waajuram wa di sëriñ Moor Roqaya Buso mu jox ko ca ndigal di ko wax ne juróom ñetti fan yi topp ci màggaluk Tuubaa gi nañ ko ci fàttaliku ñu boole koog nag waajuru sëriñ Ceerno Buso di soxna Faati Mbàkke moom maam maam Ceerno Ibrahima Faati Mbàkke kon ñoom ñaar lañuy boole benn bis bu ñuy fàttaliku ci Tuubaa ci këram gi nga xam ne ni moo nekk ci wetu Daaru Minam ñuy ñaanal bu baax suñ boroom yokk ay leeram jarbaatub sëriñ Tuubaa Seexul Xaddim bi doomu bàjjanu Seex dul Faadal Mbàkke bi ak Seex Mamudul Mustapha Mbàkke sëriñ Moor Roqaya Buso ki Seex dul Faadal mbakke waxoon bisub keroog bi mu làqoo ne caabi jumaay Tuubaa ji moo koy joxe seexul xaddiim ca barke booba ak liggéey bi mu liggéeyal seexul xaddiim yal na yàlla jaarale ca barke booba saafara metti metti réew mi amiin metti réew mi amiin